التجان ستر للمالكية تي في تي في لا لا تلتجاني ينسى بإمام mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw sant yàlla julli ci Seydina Muhammad ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wàcc seen wàccuwaay di leen jox seen cër di nuyu kilifa gi nga xamante nii fekk ñu ko fi te fekk nañ ko fi ndax yéen yéenay moom te moom tam mooy yéen muy Thierno Bachir nuyo boobu nag di nuyoo bu rëy ci ñun di nuyoo bu màgg nag ñu jóge ca xadara kër Seex Sidi Xaaji Malick ñëw suñu kilifa ci suñu ndigalu kilifa Serigne Babacar Sy Mansour ci suñu ndigalu kilifa Serigne Babacar Sy Mansour ci ndigalu alxaji Makhtar Ndiaye al Amin mu yabal ñu fi pour ñu indil Thierno bashir li nga xamante ni mooy hadiyaam ci tabaski gi mu boole ñoog Al Malikia TV. ñu ànd ak moom ñëw ñu ngi ànd ak nag suñu kilifa moo toog nii muy Abdul Aziz Fall fa tabaarakallaahu man maay taalibeem toog ko rek ñu ànd ñëw fa tabaarakallaahu moo tax ma yëkkate ma yëkkati kàddu gi pour présenter ko pour ngeen xam ko ndax moom mooy bokk yoon mi mooy rësul amr kon nag du ñu def rek lu jox ko moom kàddu gi mu jotal yóbbante bi ak nuyoo bi ak lépp fa tabaarakallaahu ñuy jégalu nag bu baax a baax a baax a baax Abdou Aziz bismillah bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala mbokk yu tedd yi fii toog ci jotaay bi fi ci hadara Mawlana Cheikh Alxaaj Omar al Fuuti radiallahu anhu ci kër xalifaam di sunu wayjur Cerno Muhammadul bashir tal ayyadahu allah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu comme ni ko sama mbokk mu taalibe alxaaji Ibrahima Mbay waxe ñu ngi ñëw ci turu alxadara almalikiya ka ca bopp ba di mawlaana alxalifa sëriñ babacar si mansour ayadahu llah ngir yàllaak dox tànki bokk doxit tànki kóllëre ak cofeel boo xam ni moo takke mboolem këru dina yi ci réew mi ba kenn ku ci ne ëmbal sa morom cofeel ëmbal ko yéene yu rafet mu am nag kenn ci njabootam moom Serigne Babacar Sy Mansour ku ñuy wax Serigne Makhtar Ndiaye Al Amin jël ci ñaqam ubbi télévision bu ñuy wax Malikiya TV mu wax ni télé bi nag Tiwaawan la sax waaye këru diine yëpp ñoo ko moom ndax li ko tax a jóg mooy jàllale message yu diine kon mboolem këru diine ci Sénégal tele bi sa tele la ci ndigalu xalifa bi mu ni ko këru diine yépp nanga fa dem tàllal sa loxo sàkku ci ñoom ñaan ngir yàlla barkeel tele bi waaye itam na nga dëggal cofeel gi pour wane ni fenn fu ci nekk am nga fa yéene bu rafet tabaarakallaahu mu boole ñoog équipe bi jël xarum tabaskeem wax ni moo ko jox sunu baay Cerno Mouhamadul Bachir Tall di haddiyam ci julli gi ñu ñëw nag fekk fi loxo ndeyjooram jooram di tabaarakallaahu Cerno Bachir Sow xamni xamnaani ibrahim dafa xër rek di présenté waye kër gi kenn duma fi présenté doom la fi njabot la fi soppe la fi miin fi lol tabarakallah inna rasula bi qadril mursili ñu bari dañuy wax mursal al mursal huwa rasul inna rasula bi qadril mursili ihtakimi moom la fi Thierno Bachir bàyyi pour mu dalal nu kon moom tey moo fi Thierno Bachir kon tabaarakallahu alxaaji Bachir sax laa war a wax ndax ñoo àndoon Màkka ci 2019 bi ci la ñu gëj a aji tabaarakallah ñu ngi koy ziyaara bu baax di teg ci loxoom nuyoo ak ziyaara bi jëm ci Thierno Mouhamadul Bachir ak njabootu boppam Thierno Cheikh Omar Bachir Muntaqa Taha tabaarakallahu loolu moo nekkoon tànk yi loolu moo nekkoon kàddu yi kon ñu jox ko moom Thierno bashir soo mi nga xam moo ñuy dalal ci turu sëriñ bi mu yëkkati kàddu tabaarakallaahu ñu taataan ko su ko defee ñu yeewee ko incha allahu taala nii mu ko defee fii nag noonu tam la ko defee ci këru diine yëpp bàyyiwul kenn tabaarakallaahu kon sëriñ Maxtaar Ndiaye moo fi indi hadiyaam ci turu xalifa bi di sàkku ci yéen ñaan ak barke.

Euh, Thierno ci kër nee na waxoon nañu ko yoon wi yéene bi sëriñ Maxtaar Njaay am ci turu xalifa bi sëriñ Babacar Sy Mansour cofeel bi mu am ci këru diine yépp xam ni diine yëpp tey ñi ko bokk benn lañu la farqa baynahum ñoom ñëpp kalimatullahi la ñuy yëkkati ci kaw di dundal diine l'islam khalifa bi niko télé bi nga ubbi dama bëgg nga dem ci këru diine yëpp wan leen ko wax leen ko ñu ñaan ci yàlla barke mu nekk télé boo xam dafay dafay yëkkati kàddu l'islam mu ni ko itam nag booy dem na nga yóbbaale sa hadiya feeñal cofeel ndax al hadiyatu hiya alamatul mahabba mu ni ko kon yóbbul leen seen xaru tabaski nga barkeeloo ko ndax ku bëgg barke da ngay defal ku yàlla barkeel loolu moo tax ñu ñëw tey ci turu xalifa bi ak turu Makhtar Ndiaye ànd ak Ibrahima mbay mii ak ñi nu àndal indil sunu baay Thierno Mouhamadou Bachir Tall xarum tabaski ci turu Serigne Makhtar Ndiaye amin nee na yàlla na ko yàlla def moo koy def at yu bare bare bare te mu barkeel ko nee na yàlla denc ko fa mu koy denceel jëf yi nga xam ne du ñu yàqu yenn nee na tam ci àddina li mu fi war a am tuyaaba yan ko yàlla defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wallaay Ceerno nee kontaan na lool kontaan na lool jërëjëf taan amin amin neen yan nañ yàlla fay ñun ñëpp amin taal amin taal amin taal amin taal seetaan leen Malikia TV TV loolooy télé Tijaan yi yéen soppey Maam Maodo ak Cheikhu Tijaan Sakramento.